président nga wàcc sur président de la République Diomaye Diakhar Thiandoum Thiandoum yéex wax de Thiandoum ji de tous les autorités dañuy dañuy def déplacement dañuy dañuy dem sur les lieux. ah sur les lieux waaw de terrain. Babacar Diop ok on va les essayer de les suivre pour pour voir. Arif yaa ngi saa yaa ngi saa saa yi nee naa ñu ngi soog am président. waaw dëgg yàlla. parce que gars yi fay lañ doon toog rek di wooteeg di yónneeg di naan fii lay jaar rek yi lañ yaakaar rek. barki yow ma xeex. dal na xel. un président c'est ça. il doit faire. présidence yi non lii mooy kilifa. mais gars yi fa lañ toll di woote. ñëw na mu ngi wàcc na ko dugal mu ngi nii si oto bi. père baa ngi wàcc na ko dugal. fekkoon gars yi fii lañ nekk di doon toll Dakar di yónnee ak yu woote naan naan la fii la fa la wàcc si la lii tàggoogul waxul dara. politique kon président dafiy ñëw ak lu ne ñu dugg lii mooy liggéey. billaay wallaay c'est ça encore kon kay yaa ngi wax président bilaay. barke alxuraanu kariim eh bu dee change force. je te jure. bilaay. waaye président tam waroon na xool si mbalit mi itam wax dëgg yàlla saxaar si noonu lañ dee. mbay mi dañu ko waroon tëj depuis deux mille vingt deux. કરશે પ્રેમી સિંહોડ પ્રેમી સિંહોડ પેર ભાગની પેર ભાગનો ભાઈ merci non. waaw président c'est ça Sai, Lamin. Ana Lamin goña, Lamin.